Sorano c' un défi nee naa la man si tey Maroc si les jeunes un aimé la salsa aujourd'hui c' grâce à Alias Diallo am nee naa la cinq albums quatorze vidéoclips si tous les salseros avaient fait ça kon salsa dépassé na fi ma osé le seul qui a osé a défier Sorano un jour de mercredi ouvrable gars ne kii xanaa day xaru kii du yem frontière am fële mais est ce que kii xam na boppam Salsa Sorano mm-hmm. et je peux dire toutes les télévisions amul kenn ku ma jël en direct non ñëpp dañu rasu ñu neen di waaye kii day xaru même Sorano quand je suis parti signer le contrat maa génn sama xaalis sama fay on m'a pas donné Sorano on me l'a pas prêté j'ai payé de mon argent mm-hmm. Sorano ñu signal ma contrat ma signé ma ne leen da ma xamul je vais remplir cela non ce jour de mercredi je vais vous prouver que man li may def mbalax man mënuñu ko. te loolu am. te loolu am. macha allah je parti à Sorano. Mhm. tout ay été fait pour gàllankoor Sorano bi. loo xalaat nag yow du ma ko wax de. Mhm. mais loo xalaat si àdduna gaay def nañ ko. y en a qui m'ont rendu quatre cent cartes que j'ai ma jox leen pour jaay ma ko du ma du ma wax seen tur ñu delloo ma ko. ils l'ont gardé un mois après ñu delloo ma ko kenn jaay sa un ticket. barke rasulillahi si laa taxaw chez Iba ma ne leen si vous croyez que man je vais Sorano pour essayer vous vous perdez votre temps ma suis un homme de défi da ngeen ma xamul da ngeen musa wër Sénégal ngeen Alias Diallo je suis le seul qui s'appelle Alias Diallo au Sénégal parce ma xamul ma Sorano pour la première fois j'ai rempli Sorano à gaay gaay ne non c'est fu mu jaar <laughs> la TFM était là-bas mhm. la Sen TV était là mais ils sont restés quatre mois avant de diffuser ce que j'ai fait quatre mois après quatre mois lalla alors que y a des musiciens bu ñu sëqatee rek ñu won ñu won ko télé ah, ils sont venus enregistrer Quatre mois après le mois d'octobre, moi je suis parti au mois de juin, le 10 juin. Mois d'octobre, la SenTV génne ko. Et les publicités, je les payais de ma poche à SenTV. Man maa ko fay sama poche. May ñu ma ko. J'ai payé les publicité Et si c'était Non, ça sera très difficile pour moi refaire ko. Je voulais dinaa ko defaat mais ça dinaa seetaat bu baax. Parce que duma xale je vais pas priver mes enfants sama terrain tabaxuma ko dama ko bëgg a tabax may jël sama xaalis yëpp kenn du ma dimbali ma koy dem dugal foofu le le défi que je voulais mhm. je l'ai relevé je suis rentré dans l'histoire mhm. alias Diallo le capot mhm. le seul salsero qui bu ñeme dem Sorano pour son anniversaire le seul qui l'a fait le seul qui l'a rempli c'est moi dans toute l'histoire de la salsa au Sénégal